alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala maulana rasulillah muhammad ibni abdillah alqail aleykum bi taqwallah fa innaha jimaau qul xayrin ñuy sant yàlla bu baax julli ci yonente muhammad salallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo waxoon ne maa ngi leen di dénk di leen dénk ragal yàlla mu ne ndax ragal yàlla moomu de ci ngeen di jëlee mboolem yiw yi ci ngeen koy jëlee Eh, ñu ngi nuyu mbokku jama bi yëpp di leen ndokkeel ñoom ñëpp di leen baalu àq it beneen yoon ci géej diggante bi te di rafet njort ne dinañu nangul ngant ndax nekkoon rek ci ay tukki ñu ngi ziyaara mboolem waa Fatul Akbar ñuy ndokkeel suñ bopp di leen ndokkeel ci jamono ji nga xam ne jamono xat na. ci jamono ji nga xam ne soxla nañ ñun ñëpp ay laayante biir mooy jamono ji nga xam ne toll nañ ci xëccoo nga xamante ne kenn ku nekk mu ngi teg ay intérêt bu fekkente ne am nag benn ay ndénkaane yoo xam ne dinañ ko joxe rek mu jëm ci mboolem ñi nga xam ne ay ndaw lañ rawatina doomu aadama rawatina jullit yi nga xam ne ñoo dëkkee Sénégal rawatina population bu Sénégal ah, li nga xamante ne ci lañuy dem nag mooy dañuy indi rek lenn ci ay ndénkaane yoo xamante ne Seydina Aliin radiallahu anhu dénkoon na ko waa Madina ci ay jamono ñu ne Seydina Aliin dafa romb ci euh, marché bu Kuufa am mbooloo mu bari moo xam ne ñëw nañ dogaale ko ne ko yow ki nga xamante ne yow yaa amirul muminin dañ lay laaj ñun de dañu gis ne daal jamono ji lépp loo xam ne ñaan nañ ko yàlla rek yàlla duñu ko nangul ay yow mi nga xam ne yow yaa ibnu abi loolu lan la yàlla wax ci lan mooy sa sa sa sa ci loolu ci la Seydina Alin waxee ne seen xol yi ñoom ñoo feebar ci fukki feebar fukki feebar yooyu nag en tant que saafara wu leen ko rek du ngeen ñaane yàlla du nangu ñu ne Seydina Alin feebar yooyu yan la ndax ñu mun cee mucc li tax ñuy wax lii nag mooy ñu bàyyi xel bu baax ci jamono ji nga xam ne dañu toll ci tànn. ci jamono ji nga xam ne dañu toll ci mandute ci jamono ji nga xam ne lu ci kenn ku nekk suwaa na ki muy suwaa li des nag mooy ñu jëfandikoo ci ñu gëm yàlla ñoo ñu daglu yàlla lépp loo xam ne rek yàlla dogal na ko ñu xam ne loolu la Seydina Ali ne leen feebar bu njëkk bi de mooy ne dang araftum araftumullaha taala falam tuaddu ahaqahu xam ngeen yàlla xam ngeen ne lépp loo am yàlla moo ko dogal te nanguwu leen joxe àqu yàlla yi mooy tenku ci ndogal ak yàlla yi mooy feebar bu njëkk bi mooy xam ngeen ne yàllaa fi nekk lépp lu xew ci kawnu bi yàllaa ko dogal wala dogaloon na ko démb tey doog a ñëw yéen da ngeen di vieux rek da di seetaan waaye li fiy daw yëpp film la woon waaw xam googu ngeen xam ne li am yëpp yàllaa ko dogal lu teewoon ngeen di jooxe ay àqu yàlla mooy ngeen nangu dogalam mu ne ñaareelu àq bi mooy ñaareelu feebar bi mooy zaamtum annakum tuhibbuuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa taraktum sunnatahu yéen yéen a ngi wax ne da ngeen bëgg yonent yàlla Muhammad bo fuñ tuddee yonent bi ngeen di kër këri di joxe seen alal yi te nanguwu leen joxe li nga xamante ne moom mooy maanaam sunna wu yonent bi alayhi salaatu wa salaam yéen ñëpp bàyyi ngeen sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne ñetteelu feebar bi mooy qaraatumul quraana walam taamalu bihi yen ñëpp jàng ngeen alquran yéen a ngi wone ne bëgg ngeen ko. waye nanguwu len jeffe li nga xamanteni mom la ni alquran digal ndax alquran kat dafa digle ne nañ atewo ci li yalla atewo kep ku nanguwul atewo ci li yalla atewo naa nga kep ku nanguwul atewo ci li yalla atewo fasiq nga kep ku nanguwul atewo ci li yalla atewo kafir nga mune ne <clears throat> ñentelu febar bi moy aqaltum nimatallahi taala walam lam tu'addu sukraha yen ñep li ngeen di dundé moy xewalu yalla yi te du ngeen joxe mukk di sant yalla fu ngeen tollu mune jiromelu febar bi moy qultum anna shaytan aduwakum wa wawa yen ñep ne ngeen saytaane sen non la te dal gis nañ ne lepp lo xam ne yéen koy jëf rek da ngeen di dëppoo ak ay jëfu shaytané jëfu shaytané nak dara wut ci yalla dogal nga weddi doo dogal ak yalla yi mune jirom mbennel bi moy qultum annal jannata haqqun yen ñep ne ngeen aljanna deug la walam ta'malu laha te jëfu len lu len mëna dugal aljanna mune jirom mbennel bi ñu ngi jégal bu mu ne juróom-benneelu feebar bi mooy juróom-ñaareelu feebar bi mooy qultum anna naara xaqun walam tahrabu minha yéen ñëpp nangu ngeen ne safara dëgg la te nag jëfu leen jëf ju nga xamante ne daf leen di musal ci safara maanaam dawu leen safara maanaam mu ne juróom-ñetteelu feebar bi mooy qultum anna al mawta xaqun walam tastaidu laxu yéen ñëpp gëm ngeen ne dee dëgg la yéen ñëpp xam ngeen ne kenn ku ci nekk ci yéen dee te nag kenn ci yéen préparé wul dee ndax di gën a bëgg àddina rek mu ne juróom-ñeenteelu feebar bi mooy maanaam isa dafantum juróom-ñeenteel bi mooy ida intabaxtum min an naw mi istaqaltum bi xuyu bi uyubi naasi wattawat nasitum uyubakum maanaam ida intabaxtum min an min an naw mi istaqaltum bi uyubi naas wa nasitum uyubakum saa bi nga xamante ne yeewu ngeen ci seen lal yi seen soxla ak seen problème yëpp mooy da ngeen di soxlawoo ayibu nit ñi diw moo def lii diw moo def lee mu ne ba pare ngeen fàtte seen ayibu bopp yi xanaa moom la yonent bi doon wax ci xadis ba ne isa arata an tazkura uyuba naasi fazkur fi ka soo demee ba dara dese wut la lu dul nga nekk fi rek di wax ayibu nit ñi mën na nga toppatoo sa ayibu bopp yi ndax doy na la sekk moo tax sax bés yàlla wax ci alquran ne bu bés penc ci jotee mu ne nit ki dina daw waajuram nit nit ki dina daw mbokkam nit dina daw doomam ñu ne yàlla loolu lan moo ko waral mu ne ndax kenn ku ci nekk yéen am na ci <coughs> kenn ku nekk ci yéen rek am na mbir moo xamante ne moom moo ko doy sëkk walis muy toppatoo mbirub keneen loolu moom mooy juróom-ñeenti feebar juróom feebar bi mu ne fukkeelu feebar bi nag mooy dafantum am waatakum walam taatabiru bihim kenn ku ci nekk ci yéen suul nga li nga amoon yëpp ci ay mbokku sa xarit yi dee nañ say wajur dee nañ say mbokku dee nañ say sëriñ dee nañ sa ñi nga xamoon say doom ñëpp dee nañ nga suul leen wëlbatiku waat ci sa bopp te doo xalaat ci ñooñu ñi nga xamante ne da nga nekkoon ak ñoom di dund ak ñoom wala fa foox na fi nga doon tëddal benn laal wala sa borom kër gi nga doon nekkal ci benn laal wala sa way jur bi la indi jamono toppatoo la ba nga toll nii ñoom ñëpp nga gis ne génn nañ àddina yow nga des fi di dund te loolu daal doo ci def benn xalaat doo ci def benn jàngat mu ne lii moom mooy feebar fukki feebar yi nga xamante ne mu ngi ci seen xol yi te fekk feebar yooyu saafara wu leen ko rek bu ngeen ñaanee yàlla yàlla du nangu kon nag ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom mën a saafara yàlla na suñu jàngaro yooyu ba nga xam ne buñ ñaanee yàlla mu mu nangu ñaan yàlla bi nag duñ ci jiital lu duwut ñu ñaan yàlla mu indi ñu jàmm ci suñu réew mi ñuy o ndaw ñi ñëpp ci dal ñuy oo ndaw ñi ñëpp ci maandu ñuy oo ndaw ñi ñoom ñëpp ñu toog ci seen kër yi te xam ne saytaane mu ngi lamb ci ay jëmm ci ay biir ay nit ci biir réew mi ngir rek bugg ay yàqute ci biir réew mi waaye yal na yàlla bu ma ànd ak mboolem xeetu koo xamante ne da indi saytaane ci réew mi ab palte de yàlla moo ko yor moom mooy seet ku ko neexit mu fal ko nguur de yàlla moo ko yor mooy seet ku ko neex mu jox ko ko képp koo xam ne boo nguuroo sa nguur dina jig réew mi réew mi ne ci jàmm yal la yàlla jox nguur gi waaye képp koo xamante ne nag boo nguuroo sa nguur ci fitna lay dox réew mi yëpp nekk ci ay yal na yàlla xañ la nguur gi bu ko jaree sax yàlla jëlee la fi nit ñi des fi maa ngi leen di baalu àq di leen wax ne wa aqiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin